ngi tudd Hadi maa ngi dëkk Ndengle Sall kër gaanu Sall dama ñëwoon wol si nag préparé tam tamxarit bi tam tamxarit bi nag yàlla nañ ko fekkee jàmm ñu lekk ceek jàmm yàlla defal ñu wërsëg ubbil ñu wërsëg ubbil ñu xeewal te mu dàqal ñu jàngaro bu bari bi ci dëkk bi mu indil ñu xeewal ñu fekkee nawet bi mu ñu may ñu nawet bu barkeel nawet bu xeewale ah rang bi day gis nga ci suba ba tey ñu ngi fii ci fajar ba tey am na yoo xam ne fii la fanaa am na yoo xam ne fii la yëndu ba tey ñu ngi ci rang bi rek di rang mais rang bi nag ñu ngi ko dox amul buuxante amul fuloo amul dara ñu ngi rang normal di xaar pour ñu wolal ñu waaw. Euh, maa ngi tudd Assane Ndoye maa fii Buxu euh, si kër gi fii nag dafa am benn machine wóolukaay dafa nekk loo xam ne dafa yàgg saa tam xarit buy jot nit yi day ñëw pour wóolu pour préparer seen cere yi quoi la daan def mooy faale nii rek ak mbenge nii waaw waaw. waaw ram dafa xaw a wàññeeku fu mu nekk nii mais depuis nit ñi fii nii la ñu ràngee fii quoi. waaw ah, parce que boo xoolee géographiquement euh, Bourou machine bi rek moo fi nekk waa Pâques ñoom dañuy ñëw. am na ñoo xam ne nag dañuy dem garage Ventanier à 2 kilomètres d'ici am na ñoo xam ne dem Diass à 5 kilomètres d'ici aussi. waaw ça me beaucoup de choses parce que lii du du ma wax guleet quoi parce que lii du tey rek quoi. waaw parce que vraiment ça me beaucoup de choses surtout jamono bi nga xam ci lañ gën a nekk xale ak bu bu daan am pour ñun daal waaw c'est Euh, tamxarit maa ngi waaw maa ngi leen ñaanal yor euh, ak yor le ak gudd fan ñu fekk ko déen et puis mbéngeen yàgg la ñu def ndànk dégg nga man Viviane maa ngi seetaan DK TV.